mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi seeni bët tàggoo ki nax ki ko mën laa koy jéem te ki ne fàng daa ngi nii nëbbatul ay mbiram. waaw damay naan asalaamaaleykum di leen nuyu yéen ñi mm, di nuyu caméraman yi di nuyu mobile. di nuyu Sokk di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu nag Pikine yëpp xam nga soq bi mu ma ko waxee damaa bàyyi sama lépp ñëw parce que man wax dëgg yàlla léegi moom si yii laa mën a dox waaw avant lii mbuur laa jógee ci kase comme kii suñu dëkkandoo la suñu rakk la comme niñ ko defee si jibi ba yàlla def li mu def nii maa ngi woowaat ñi jàppale woon jibi nañ ñëpp ñëw teg ci loxo booy Malika xam naa bu ñu jógee fii dinañu xam fan ngeen di fan la war a jaar ba dimbali ko képp koo xamante ne rek dimbali woon nga ma jaarale woon xaalis ci man dama buggaat nga dimbali suñu raq ji booy Malika ñi ma ciy woo nag mooy Gambien yi ba pare Gambien yi ak association boo xamante ne tey mu ngi France Toldo jiite ko ak Libaas Lo di frère si Mood Lo ñoom ñoo jiite association boobu ak euh, naa si ñoom seen association boobu dañoo ubbi foofu benn caisse social boo xam ne mille personnes lañu ñooñu ci kaa yi rek la ñuy xaar maa ngi leen di ñaan am na leneen lu xewaat muy lii liggéey amaan na amaan lii moom dam koy def suma liggéey su ma suñu jógee fii ñun ñëpp dinañ leen woo ba ci ndeyu mbill bi nii ñu ko defee nii muy man Sokh Mobile dinañu toogaat ba ci malaat bi ñu toog lépp luñ ciy def ñu décider loolu ak ay mbokkam maa ngi ciy woo ñëpp ñu ñëw jàppale ko képp koo xamante ne rek dimbalil nga ma jibi bi tey maa ngi lay ñaan nga tegaat loxo suñu rakk ji waaw. waa kase man envoyé nañ ma kayit yëpp léegi nag euh, envoyé naa ko France. dañuy xaar ñu defal ko bilan moom kase ak benn femme boo xam ne mu ngi tudd mu ngi nekk Canada ku ñuy wax di xaaloo moo yor léppam ñun jot nañu kayit yi ba man envoyé naa ko ku nekk benn clinique bu nekk Paris mu ne naa ko may ci biir semaine bi su ma ko mayee ci biir semaine bi dina defal euh, kase benn bilan su su ko defee bilan ba pare ma xaar nag ba jibi départ bu jibi demee léegi nag ci lañuy ñëw mun a jublu ci kase te ñëpp xam nañ ni muy dëkk bi dara doxul lépp dafa tëju du dëgg dañ ciy sóoraale loolu tamit du xam nga euh, nu mu tudd Europe bi tamit soo xoolee seddaay bi ñu ñu ñu ngi ciy def seddaay bi metti na foofu kenn liggéeyul ñu ci bëri liggéeyuñu xam nga xam nga loolu loolu kase la mais kase dañuy xaar man damay xaar ba jibi dem bu nekkee jibi dem na man mun naa jublu ci ba balaa kase boobu dañuy jublu ci booy bi nga xamante ne lii nii tey dañ see buggu taxaw bu baax a baax a baax xam nga dañ ko bëgg def par benn benn suñu ñu ñu ngi ñu ngi woo ñëpp nag ñu jéem a xool fan la ñuy jëlee numéro booy bi ak ki ko war a fi fi koo xamante ne lépp loo am fa nga koy fa nga koy dugal maa ngi ciy woo autorité yëpp ki mu siy njëkk woo nag mooy suñu ministre des sports muy Matar Ba. maa ngi koy woo mu ñëw jàppale xale bi parce que ci làmb la bokk ci njabootu làmb la bokk di di di woo mbër yu mag yi ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ko parce que yii dafa war a jeex ci làmb lii lii nii dafa war a jeex xam nga muy CNG président président euh, CNG bu bees bi muy Bira Sène maa ngi koy woo tamit moom mu ñëw jàppale di woo ñëpp daal population Pikine ñëpp nañ ñëw comme ni ni ñu ni ñu defee kii bi nii taxaw bi ñu taxawoo ci bi damaa bëgg ñëpp ñëw waat ma si booy bi may remercier soq bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy remercier ci li mu def nii rafet na kii moom duma ko gërëm mobile moom dama koy wax kon ma joxe micro dama koy bàyyi yàlla ma moo xam lu mu bëgg lépp lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te nit ku baax la billaahi wallaahi heure boo ko woowee heure boo ko woowee ñun ànd nañu fee mu wàccee ma si centre commercial bu bees bi billaahi ñu koy jox dix mille pour mu def ci otom essence mu sànni ñu ko mu ngi nii billaahi li muy def nii billaahi wallaahi tallaahi ci kanam la jëm billaahi te man de man Pape Sarr maa ngi fii li des sama dund man man nekk fii rek soog mobile bii dootul bëreeg mbaru Pikine billaahi wallaahi loolu suñu ngoor sax mayuñu ko ñun boog ñun waa Pikine suñu ngoor mayatuñu soog kii mobile bii di di laaleeg mbaru Pikine billaahi wallaahi noo déggoo suñu ngor laa la ñu jël roi bi may ko ko ñu nangu roi bi ci mbëru Pikine jox ko ko noonoo non kon non daa am daa déedéet yàqul làmb de dafa am lu ñu ji laa la wax nii dama ne ñëpp mbëri yëpp nañu xool nit mobile bii ni muy def nii billaay wallaay talaay maa ngi koy conseil mbëri yëpp nañu xool kii ni muy lii nii tey suñu génnee cadre làmb xam nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk baay ma ciy woo mbëri yëpp Balla maa ngi koy woo pour mu ñëw jàppale booy bi Eumeu seen booy Niang Ama Baldé Lac de Guiers Yékini Tyson Baboy bàyyiwuma kenn na ñëpp ñëw taxawu booy bi mu faju képp ku si mën a jàpp maa ngi la ciy woo di nuyu nag bu baax suma frère bi soq di leen nuyu yéen tamit seen liggéey rafet na. waaw nee nañ benn benn signature la ñuy xaar boo xamante ne tey euh, benn kayit la ak accompagnement mooy frère bi xaw ma pris prix de charge la waaw loolu la moo ci des mais moom wax dëgg yàlla man moom man moom sama mission pare na fa waaw maa ngi ma maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp gërëm naa ñëpp waaw man ñi ma ciy woo nag mooy toldo <laughs> toldoo ak libaas waaw am amati ngeen beneen liggéey waaw Toldo yaag libaas waaw woo naa leen ci ngeen ngeen jaaroon ngeen jaar fi ngeen jaaroon waaw xam naa bu ma demee dinaa lijjanti numéro malaat bi teg ko sa loxo yow Toldo yag libaas yépp euh, ki may wax association boobu may wax bu nekk Paris nag seexu naa moo ko yor seexu naa tamit maa ngi ko ci woo yaag sa gaa yëpp. ak ñi ne dix-huitième ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp may wax waa Strasbourg tamit nee nañ ma yii bu amatee naa leen ko wax kon tey boole naa leen si képp ku nekk Strasbourg man Pape Sarr woo naa leen Barcelone ak euh, nu mu tudd suma benn frère mu ngi fa muy Matar xam nga di di euh, di di di rakk si nongolo di suma rakk Matar tamit maa ngi koy woo moom mu ngi mu ngi ba euh, Madrid. ñoom ak seen association bi ñëw leen tamit comme yëgul leen affaire jibi bi da ngeen ma ko wax ñu may envoyé ma ne leen wax dëgg yàlla dem leen ngeen envoyé ko liiru parce que man fi mu toll nii sama mission mot na maa ngi leen di woowaat ci lii waaw di leen woo ni tey am nañu beneen rakk tamit bu ñëwati bu feebar maa ngi leen di woowaat comme yëgul leen ko woon bii tey maa ngi leen bëgg maa ngi bëgg tey bu numéro yi génnee dinaa leen dinaa leen jox numéro bi nga xamante ne. xam nga foofu ngeen di jaarale xaalis surtout seexu naa si seexu naa si boobu nekk Paris xam nga ñoom dañoo nekkoon ci benn femme bu euh, benn femme étudiant bu réer foofu ci lañ nekkoon ñoom fan yëpp ci lañ nekk ma waaw jaari sow ci affaire jaari sow bi ñoom ñoo ko gérer foofu ak consulat bi maa ngi woo consulat bi tamit xam nga di leen ñaanal yàlla na ngeen ko yàlla yàlla na leen ko yàlla niital muy jaari sow di ko wax. képp ku nekk Paris di leen masawu nag parce que ñoom nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg xam nga fan yii yëpp ñu ngi may woo ci affaire jibi bi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ak seen association boobu yëpp association bi dafa nekk Belgique Allemagne ak ñëpp ak waa Hollande bi waa Hollande tamit waa Hollande maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax euh, Pël soo gisee may wax Gambien yi lu tax ma si insisté doo wax Gambien yi billaahi wallaahi affaire jibi saar bi ñoom ñoo ëpp liñ ma jox. ñoom dañ cee def li nga xamante ne tey xam nga daf ma marqué trop muy Gambien yi fa ne ñu nekk Germany Suisse ñëpp di woo nag Baye Fallou Balla Gaye boobu bi nga xamante ne wax dëgg yàlla bi ma ubbee moom moo ñu njëkk envoyé xaalis ñu ngi koy wax Baye Fallou Balla Gaye nekkoon Seras saalu nag tamit dañ koy woo parce que keroog wax dëgg yàlla man bi mu bi ñu njëkkee yónnee xaalis bi tegul neuf jour xaalisu jibi bii mat kon kooku ñu ngi ko ciy woo di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax am na benn sëru Balla Gaye tamit bu nekk euh, bu nekk fële Brescia waaw Brescia moom it maa ngi koy nuyu bu baax dama koy fàtte gërëm nag maa ngi lay gërëm bu baax a baax nga ñëw jàppaat si maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp pikin yëpp géejawaay parcelle maa ngi woo ñëpp di remercier mobile di leen gërëm tamit yéen ñii tey bu demee ba affaire jibi bi avancé nii yéen sit yi bokk ngeen ci maa ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm mbokki Sénégal mbokki réew mi